les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2446 tests réalisés, 70 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,86%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 5 cas contacts par nos services, Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 65 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 31 cas, tandis que les autres régions du pays en totalisent 34. Toujours dans le bilan du jour, 322 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés le jeudi 2 septembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est À ce jour, 73 047 cas ont été déclarés dont 63 092 guéris, 1785 décédés et donc 81 169 patients encore sous Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux encore retenus dans nos services et à ceux qui sont dans les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 ci ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn test yi ñu def juróom-ñaar fukki test juróom-ñaari fukki nit ñoo ci ñëw positif ci positif yooyu am nañ ci juróomi cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu doomu jàngoro ji amuñ ci benn ka bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom benn fukki ak juróom ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee ka communautaire ñooñu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak benn ci yeneen région yi am nañ ci fanweer ak ñeent toujours ci bilan bi ñu xamal leen tamit ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar si malade yi entre woon hôpital wala ñi doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn si yàlla ànde fanweer ak ñaari malade ñoo nekk réanimation juróomi malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb alxames ñaari fan ci weeru septembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade ñi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey daleku ci kaa njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-ñaar fukki junni ak ñett yu teg ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom benn fukk ak juróom benn fukki junni ak ñett yu teg juróom-ñeent fukk ak ñaar wér nañ ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bàkkan mu des juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñoo des ci loxo docteur yi ak malaat ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi